parce que ci seen wàll lañu ñu mën a jaaree pour euh, askan wi xam li nga xam ni ci la ñuy yëngatu ci wàllu liggéey bi ak fu ñu toll ci cëru réew mi loolu nag buñ koy def sabab bi rek lenn la fexe ba ñépp kuy sénégalais nga xam ne ñoom lañuy liggéeyal ak képp ku nekk ci àdduna bi nga xam ñun ci lan la ñuy yëngatu ak ci liggéey bi ñu ñu sas fan lañ ci toll te loolu maa ngi koy def ànd ko ak kii di procureur de la république mu nga xam ni moo moo nekk tribunal régional hors classe de Dakar ak ki nga xam ni moo nekk procureur de la république tribunal de grande instance Pikine Guédiawaye ak sama naataango yi ma bokk liggéey bi ñu topp ci man kii di premier avocat général ak kii di deuxième avocat général sabab bi nag ci tënk mooy justice mooy yoon askan wi la fi nekkal donc dafay baax léeg-léeg bu ñu doxee ba ci yàgg ñu am taxaw seetlu dajeeg taskatu xibaar yi pour que ponk yi nga xam ni soxal na réew mi soxal na askan wi ñu illeen leen ci ay leeral ci jéego yi ci jota jota yëkkati moo tax ci biir loolu la cosaanoo gis mooy procureur de la république mu jël kàddu jàkkaarloog tasxatu xibaar yi waaye li waral tey man ma génn ànd ci ak ñoom mooy la nga xam ne dañ koy waxtaane ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa dépasser sa pàcc am na lu nga xam ne dafa aju ci Dakar am na ci lu nga xam ne dafa aju ci Pikine Guédiawaye donc ñu jàpp ni la gën a yomb rek mooy man mi nga xam ni man maa muude fépp ma mën a porter bi nga xam ni li aju fii ak li aju fii yëpp région de Dakar dinañ ci mën a dinañ ci mën a waxtaan. donc ci biir loolu nag lañ tënkoon juróomi poñ yu nga xam ni ci lañuy waxtaan mi nga xam ni yoon mi ngi ciy yëngatu te boobu ba léegi xëy na jotuñu ci leeral lu bari poñ bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee rapport pour des comptes lu ñu tuddee rapport Cour des comptes ci weeru février tolloog juróom-ñaari fan 2023 le procureur de la République tribunal grande instance de Dakar dal di lu woon enquêteurs yi pour ñu ubbi ay l'enquête loolu bëgg a seen xel rek nii bis ba bis ba delsi bu nekk l'enquête yooyu dinañu jox ab tënk xamal ñu ni jéego yi ñu ci jot a def te li ñu seetlu mooy semaine bu nekk bu ñu jotee rapport boobu nga xam ne ci la ñuy tënk jéego yi ci def dossiers yi ñu ngi avancé enquêtes yi ñu ngi poursuivre te mën naa ni am na ci nga xam ne bëri nañu mais bala muy yàgg l'enquête bi dinañ ko tëj. dossier ñu jébal ko procureur bu ko defee moom dina leen mën a leeral ci dogal yu ci jël loolu mooy solo poñ bu njëkk bi ñaareelu poñ bi te loolu leeral nañ ko ci anam yu gën a yaatu ci kàllaama français ñaareelu poñ bi mooy li ñu tuddee mbirum docteur Babacar Niang mbirum docteur Babacar Niang tamit ñëw nañ ci ndax dañoo seetlu ni soxal na lool euh, askan wi soxal na lool tasxatu xibaar yi ak soxal na ñëpp doon leeral rek ni docteur Babacar Niang moomu ak benn nattangoom bu ñuy wax Cheikh Mbacké Medina Sey alors dafa am euh, nit mu nga xam ni mi ngi tudd mamadu li mu ngi tudd Cheikh Tidiane li Cheikh Tidiane Ly mi moom moo doon wéyjur ci Mamadou Ly mi nga xam ni moo ñàkk bakkanam ginnaaw bi yëngu-yëngu yi amee donc Mamadou Ly moom ak ku ñu wax Bamba Fall bi nga xam ne mooy maire Médina ñoom ñaar ñoo déposé plainte commissariat di ñaxtu lu nga xam ni seen doom bi ñu naan Mamadou Ly dañ koo rey amaana ci reyeef nga rey nga xam ni du seen tayeef ak seetaan ko ba mu ñàkk bakkanam ak teg ko ci condition yi nga xam ni euh, mënoon da ci ñàkk bakkanam mise en vie dans mise en danger de la vie d'autrui ba ñu déposé plainte yooyu nag yoon jot na càmbar mbir mi ci ci piir enquête bu nga xam ni déglu nañ ci pàcc yépp dañ ci dégloo pàcc yépp ci diggante 18 mars 2021 ba le 21 mars 2021 li ci jotam mat teg baaraam rek mooy enquête bi la muy am ba fa mu toll nga xam ne ci lañ ko tudd moom dafa nekkoon Fuuta ni mënula ñëw waaye ba ñu dem ba yëfi nar ba yëfi nar tër jumtuwaay yi nga xam ni yoon maye na ko pour que enquêteurs yi mën a forcer nit mu ñëw wuy si leen moom la jëfandikoo looloo tax docteur Babacar Niane ñu jàppee ko mais dinañ jàpp bi indi ko Dakar pour mën ko déglu ci ci ci ci coow li waaye bañ tënkee enquête bi indi nañ leen ndax gis nañu ni am na lu tax ñu mën leen a toppee ci foog lii nga xam ni moom la ñaxtu. moom moo tax seen dossier dénk nañ ko juge d'instruction moom mooy càmbar pour xamale mbir mi la muy mujj ñetteelu fan bi mooy coow li fi jëgoon ci fan yi ñu naan Ousmane Sonko dañ koo bëgg a rey wala dañ ko dañ ko bëgg a rey wala dañoo bëgg a faat ba kanam loolu tamit ubbi nañ ci l'enquête bañ ci ubbee l'enquête gëstu boor bu ne moo xam ci fajkat yi la moo xam ci euh, clinique yi la moo xam ci laboratoire yi la amul benn piste buñ ci mën a am docteur yi koy faj ñoom ñëpp déglu nañ leen ñu ko recevoir hôpital ñoom ñëpp déglu nañ leen tamit waaye lenn moo fi nekk te wér te dëgër lu nga xam ni kenn mënu koo euh, euh, randal li fi nekk te wér te dëgër te kenn mënu koo randal mooy am na góor suñu naan yargas yi ba yëngu-yëngu yi amee moom moo jëloon benn benn écharpe am lu ci def jox ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko nokki ko. njëm ginnaaw bi nag dañ cee dégg ni waa ji dafa am ay jafe-jafe ci Ousmane Sonko dafa am ay jafe-jafe ci wéru wér-gu-yaramam maanaam ci dënnam ak ci des problèmes des problèmes ba ñu defee enquête yi gis ñu lenn lu nga xam ni benn piste bu nga xam ni ala kenn ku nga xam ni jot na teg benn action ci Ousmane Sonko la ñu ni waa ji njëm nee na moom ci ay faram la bokk te lam ko jox daf ci defoon bineegar pour jox ko jumtukaay bu nga xam ni mooy tax lacrymogène du ko firnaal loolu. ñun dañoo jàpp ni pour lu wóor nañ ko topp ba fexe ba xam écharpe ba mu ko joxoon xam lam ci defoon lan la est-ce que loolu mën naa indial Ousmane Sonko loraange donc ci kaw loolu lañ ko lañ ko jàppee donc dañuy yokk jox dossier bi juge d'instruction pour mu indi ci leeral gën a indi gëstu yi donte nag yàlla si moom nee na ci ay waxam ci ñooñu Ousmane Sonko la bokk. donc loolu mooy ñetteelu poñ bi ñetteelu poñ bi mi ngi concerné li naan commando commando la ay nit ñu nga xam ni ñoom ñoo tuddee noonu seen bopp te ba ñu gëstoo l'enquête bi daa wane ni ñoom la leen soxal mooy kenn ki ku ñuy wax euh, Mouramani Kaba Diakité moo ko jiitee Euh, benn pàcc bi beneen pàcc bi ko ñuy wax Cheikh Kébé moo ko jiite te ñoom dañoo teg ay pexe yu nga xam ni ba ci cëppaandaw jo la ñu bëgg mooy fexe ñu nërmeel euh, euh, les institutions je sais ñu nërmeel les institutions la bëgg mooy manifester bu amee ba njaboot yi génnee ba nit ñi génn di bokk ci manifester yi ñu profiter ci daal di éclater ay engins ay ay engins bëgg mooy tamit la ñu mbëbët mooy dem nañu ba ci seen xalaat ñu wut ay ngànnaay yu nga xam ni nit mën naa toll fu sori jam keneen te lii lépp l'enquête moo ko wone Euh, bu ko defee ñu ciblé ñu nga xam ni ay borom ndomba tànk la ñu nekk ci réew moo xam àttekat nga moo xam politicien nga moo xam sëriñ nga am na sax ay nit ñu nga xam ne dañ leen ciblé ñu nga xam ni ci presse la ñu bokk. parce que ñoom maanaam daal li leen soxal mooy boromu tur ku nga xam ni ku ko laal àdduna bi yëpp dégg ko ñu dal sa kaw te lañ ci sabab mooy indi tiitaange ci askan bi ba kenn dootul sañ yëkkati sa kàddu. ba kenn dootul sañ lenn te euh, loolu lañ ci jublu mooy installé la chaos dans le pays donc l'enquête bi détaillé na ko ku ci nekk li ci sa cër xamal nañ ko ci biir loolu nag ba nga xam ne ka nekk ci bopp bi bañ ko jàppee muy Murakaba Diakité ak ñaareel bi mu nga xam ne mi ngi tudd Cheikh Kébé ak ñi ci leen gën a jege muy Famara Nunkumamaane ak ab Karim Bey ak Baba Diaw ñeneen ñi bala ñu leen di jàpp jàpp dañoo daw waaye ñoom ñëpp xam nañ leen ñu ngi tollu ci fukki nit ak ñett ci ñu jot xamagun ci fukki nit ak ñett ñooñu jàpp nañ ci ñeent fi mu toll jàppagul nañ ci ñaar ba ñu ngi ci yoonu di leen indi mën naa ni sax ci ñun jàpp ñu ci bëri dañoo bokk ci fi yu jógee Casamance c'est des membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance donc organisation boobu nga xam ni feeñ na ci espace public bi nga xam ne musu fi am ba Sénégal de Sénégal ba léegi te nga xam ne ñoom ñi leen di jox doole mooy ñi nga xam ne dañuy nekk ci téléphone yi ak xarala yu bees yi di puus ndaw ñi pour ñu ñëw ci mbedd bi ndax fu mbooloo amul ñoom li ñu bëgg duñ ko mën a def moo tax ba liy feeñee sunu kanam ba léegi. ñu procéder di jàpp ay nit yu nga xam ni am na luñ ci laalee maintenant ci biir jàpp yoon nit ñu am luñ ci laalee léeg-léeg dinañ gis benn côté bu nga xam ni asko tout tànk la ab loolu mi ngi jàngi xëy na lañ ko mën a toppee mooy ku bokk ci manifestation bu nga xam ni yoon may leen autorisation loolu procureur yi dañoo jël euh, dañu jël seen dañoo dogal sur instruction de de l'autorité en parfait euh, accord avec leur hiérarchie que ni ay xale la ñu jàng dañuy jàng dañ leen bàyyi dénk leen seen wéyjur am na ñu nga xam ne aussi pour que ñu mën a continuer seen jàng am na ñu nga xam ne aussi ay mineurs la ñu donc au jour d'aujourd'hui amul benn élève bu ñu tey am na ñu nga xam ne aussi ay mineurs la ñu mineurs yooyu ay tout tànk la ñu toujours mais du ñu élève amuñu métier quoique fekk nañ leen yoon am na lu mu leen di toppee mais dañu njëm ay ndaw lañu ñu ci bëri dañ leen di yóbbu ci tribunal bi nga xam ne fa la ñu àttee xale yi na en fonction de la gravité des situations am na ñu xam ne naturellement dañ leen di téye mais li ma leen mën a leeral mooy bisub tey ci territoire de Dakar ñaari mineur ñoom ñoo fi ñoo fi nekkagul yoon teg leen loxo ñu xaar ñu leen di àtte am na ñu nga xam ne tamit ay muskalaf lañu ba tey ci biir muskalaf ñooñu vous avez la l'apprendre depuis un certain temps yéen ngi yëg ni liñ daan placer les mooy lam boobu ñuy takkal nit ñi pour astreindre leen bu leen yoon soxlaa ñu ji leen am na ñu nga xam ne ñu ngi leen koy takkal ku ci mel ni euh, Waly Diouf Bodian moom liggéeyam moom la ñu sóoraale moo tax ñu may ko loolu El Malick aussi Ndiaye liggéeyam la ñu sóoraale moo tax ñu may ko loolu mais ñoon ñëpp li ñuy topp ñeneen lañ leen topp ñi nga xam ne aussi ay aatikat la ñu enfin ay ay jàngalekat la ñu pour bañ euh, école soxla leen du ñu mën a dem def seen liggéey moo tax ñu may leen liberté provisoire daal leen di astreindre au port du bracelet électronique pour garantir leur représentation en justice donc arrestation yi loolu moo ko waral fi ñu toll nag dafay yoon ñu leeral loolu lépp y a des notabilités politiques aussi comme le maire de Kër Massar moom aussi jàppam ci loolu la ndax lañuy liggéey mooy xërtal ndaw ñi pour ñu génn ci biti def ay yëngu-yëngu bu leen xërtalee pour ñu génn ci def ay yëngu ci biir yëngu-yëngu yooyu la ñuy mën a dugg ci mbooloo mi réer seen biir daal di def seeni i te lii lu ñu ci am lu wér la ña koy animé ñëpp ci kàllaama français wax naa leen nu ñuy doxee lan moo nekkoon seen mëbët te finalité bi moo nekkoon qu'ils mettent le chaos sur le pays et sur les institutions donc kàddu yooyu la gisoon ci tënk ne nañ ko jagleel askan wi ak waa bitim réew di xamal ni ku nekk da nga am sa sas ci réew mi te sas boobu nga am réew mi moo la ko dénk te lañuy xaar ci yow moom mooy nga matale ko jumtuwaay yi nga xam ni yoon teg na ko dinañ ci sukkandiku lépp lu nga xam ni lu ñu war a def la ci ku tegg yoon ñu def ko ba mat sëkk voilà et loolu la ko sabab rek lenn la ba ci cappaandaw ga képp kuy sénégalais képp kuy gan gu nekk sunu biir réew nga yëg sa bopp ci jàmm yëg sa bopp ci sécurité yëg sa bopp ci intégrité te Sénégal bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñu mën ko sauver donc ci loolu laa doon tënk kàddu yi ci wolof ngeen jégal ma ci gàtt gàtt bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen tawaay je